ku jël pee di xëccu dës bi Feeling Dakar jiitu na leen sànni karawaas wi sit bu mag baa nii man Viviane ku bëgg gis samay mbir kot ma ci Feeling Dakar salaamaaleykum mbokk internet yi safoo Feeling Dakar TV am nañu mbégte teew fii di leen jukki les actualités people les plus marquantes de la semaine tey jii nag dañu koy dooree ci Moustapha Cissé Lo moom Moustapha Cissé Lo nag ginnaaw ay audio yu mu defoon doon ci euh, saaga ak di ci euh, yëkkati euh, kàddu yu ñagas jëmale ko ci gouvernement bi le lendemain mu daal di démissionné moom Moustapha Cissé Lo ginnaaw loolu nag waa APR tam daal di nañuy def conseil de discipline daal di koy génne fi nga xamante ni moom mooy APR coow loolu nag ñu bari bari daal dinañu ci àddu ku ci mel ni Ahmed Khalifa Niass moom nag li mu xamle mooy que ni euh, waa APR waruñu woon génnee euh, Moustapha Cissé Lo biir APR ndax nag euh, dafa juum rek te yàlla sax dañu koy tooñ mu ñuy jéggal kon nag na ko jéggal tegaat ko ci wetam ginnaaw Ahmed Khalifa Niass itam. kii di euh, Cheikh Baba Diallo daal dina ci àddu euh, Cheikh baaba Diallo nag di guide spirituel moom nag li mu xamle mooy que nii waa APR euh, dafa jaaxle ci ñoom ndax nag ñoom dañuy yàkkante ci seen biir. Cheikh Baba jàlloo nag ku ci mel ni oustaz Alioune Sall moom itam daal dinay àddu ci boobule audio moom nag li mu xamle mooy que ni jotul déglu audio yooyu ndax moom du déglu yooyu les saaga ndax nag yàlla sax bëggul lu ni mel waaye nag li ko jaaxal mooy que ni ku mel ni Moustapha waroon naa def leneen lu dul toog di saaga ba ñëpp di ko seetaan wala di ko déglu kii di Yaxa Mbaye nag daal di nay uh, wax moom itam daal di uh, tëkku uh, ki nga xamante ni moom mooy Moustapha Cissé Lo ne da ko yóbbu ci yoon ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo diffusé yooyu les audio bu ñu jugee nag ci coowal Moustapha Cissé Lo dañu daal di dem ci ki nga xamante ni moom mooy Babacar Ngom moom Babacar ngoom nag dafa daal di àddu ci mbir yi nga xamante ni moom la Abi Ndour daal di def muy vidéo boobu jëmale ko ci moom moom Babacar Ngom nag li mu ci xamle bokk na ci ne euh, Youssou Ndour di frère ci euh, ki nga xamante ni moom mooy Aby Ndour moom moo ko daal di woo mititlu boobu les vidéos daal di baalu ko ak ne ko nag euh, yaayam sax ku ko mititlu la ndax nag xaarul woon foofu Aby Ndour te it kii di Babacar Ngom xaritam la donc mi ngi koy jégalu bu baax ci coowal abinduur ba tey la ñuy desandi moom Atepa nag daal dina ci àddu euh, moom Atepa li mu xamle mooy que ni euh, xamul kan moo nekk ci ginnaaw Aby waaye nag dafa yàq tempsam ndax nag euh, moom mbir yooyu yóbbu na ko ci yoon te dafay bàyyi yoon daal di def liggéeyam Atepa bu ñu jugee ci moom dañuy daal di dem ci benn ndaw soo xamante nii dafa daal di def benn vidéo daal di àddu ci coowal abinduur li ba tey ak Atepa moom ndaw soosule mi ngi wuyoo ci tur Maam Sène moom Maam Sène nag li mu xamle mooy que ni xalifa euh, Sall dafay fay Aby Ndour salaire fictif ak fi réew mi toll. dëkk bi metti loolu ñuy créer salaire fictif loolu nag lu jara seetaat la bu ñu jugee ci ndaw soosule di maam seen dañu daal di dem ci artiste chanteur boobule di euh, Souleymane Faye moom Souleymane Faye nag. Euh, lu metti moo ko dal ci biir semaine bi ndax nag oto moo tombé woon na foofu foofule ci avenue Bourguiba côté cité des eaux euh, ay euh, wéyu nag dal di ko fay fekk jël ay bagages ay bancaire ak ay xaalisam euh, ak bagage yoo xamante ni lu ko amaloon importance la moom Souleymane fay nag li mu xamle ginnaaw boobu jéeya moom nag dafa daal di wax ne benn suwaay dafa daal di ñëw di wax ak moom xam naa nag ci la ko wëyu yooyu daal di doxe ginnaaw jël bagage am yooyu nga xamante ni lu ko amaloon njariñ la kon nag ñu koy masaw bu baax ci turu euh, équipe bu Feeling Dakar yépp bu ñu jugee ci moom dañuy daal di dem ci Ibra italien moom nag muy euh, artiste comédien moom Ibra italien nag ginnaaw ab théâtre bu mu defoon ak nga xamante ni moom mooy euh, Ndeye Khady théâtre boobu nag waa daaray Kocc defoon ko moom Ibra italien dafa daal di bëgg dëggal li nga xamante ni moom lañ doon joué muy rôle boobu ñu doon reflété ci théâtre boobule ndax nag dafa daal di déclarer amouram ki nga xamante ni moom mooy Ndeye Khady daal di médiatiser lu ni mel moom Ndeye Khady nag li mu xamle mooy que ni moom Ndeye Khady nag dafa daal di refuser demande euh, boobu euh, demande Ibra Italien boobu ndax nag euh, li ko metti mooy que ni Ibra Italien dafa médiatiser lu ni mel waaye nag Ibra Italien daal di na ci àddu daal di wax ne rek Ndeye Khady li muy wax ak li muy def ça fait ndax nag mënul bañ médiatiser ba pare bi mu koy tontu di ko refuser daf ko médiatiser waaye nag moom loolu taxul mu dellu ginnaaw benn yoon ndax bëgg démb tey la gën a raw kon nag dafay daal di continuer li nga xamante ni moom mooy démarche boobu ba Ndeye Khady di ko euh, jox loxoom ngir mu takk ko bu ñu jugee nag ci Ibra Italien moomu dañu daal di dem ci Père Mbaye Ngone moom Père Mbaye Ngone nag euh, di euh, présentateur foofu le ci Sen TV moom nag daal di nay yàq lu mel ni xamee kii di du mbay di doom ci El Hadji mbay nekk foofu le ci 2STV moom nag ginnaaw ab vidéo bu Mamadou Mbaye génne woon ci émission boobu le di di uh, Bantamba di daw foofu la ci 2STV yi uh, génne ko moom nag Père Mbaye Ngoné dafa daal di mitit lu vidéo boobu wax que ni uh, moom du mbay li ko fa teg mooy doomi Bécaye mbay la waaye ñu ko dàq métier bi muy def ñoo fi nekk te kenn fësalu leen moom nag dafa am chance waaye nag bu génnewul vidéo yi nga xamante ni moom la jot a def te muy ngëneel kese dootul toogati ci télé bi di présenter benn émission moom Père Mbaye Ngoné la xam ne ci biir émission bu ñu jógee foofu nag dañu daal dem ci président Macky Sall moom président Macky Sall nag ginnaaw ba ay euh, ñenn ci ay jegeñaaleem amee woon na li nga xamante ni moom mooy euh, Covid 19 bi moom dafa daal di euh, noon noonu boppam. waaye nag bi mu jógee ci euh, quarantaine boobu daal dinañ koy testé waat euh, négatif ginnaaw euh, première test bu ñu ko njëkkoon a defal moom président Macky Sall daal dinay génn ci quarantaine boobule bu ñu jógee ci moom nag dañuy daal di dem ci Wally Balago Seck moom Wally Balago Seck nag ginnaaw décès Jules Balde Junior dafa daal di jox kër ki nga xamante ni moom mooy yaayu Jules Balde Junior waaye nag coow dal dina koy topp ci loolu nga xamante ni moom la daal di def mu mel ni nag yoon fekk ko ci ndax nag ñu bari ñi ngi mitit naan lan moo tax Wally Seck bàyyi ba Jules Balde Junior euh, gaañu mu dog a jël kër di ko def di ko jox ki nga xamante ni moom mooy yaayu Jules Balde te mu waroon ko ko fajee waaye nag moom Wally Seck daal dina ci àddu wax que ni li waral mu def acte boobule bokk na ci li nga xamante ni moom la Jules Balde Junior doon bébét que ni dafa bëgg a jox yaayam kër loolu moo waral mu daal di yeggale boobule mbébét kii di yaayu Jules Balde Junior nag mu mel ni li ñuy wax ci euh, mbedd mi euh, moom yëgu ko ndax nag moom euh, li mu xamle mooy que ni mi ngi sant Wally Seck bu baax te di ko ñaanal xéwal gi yokk lool. bu ñu jógee foofu nag dañuy daal di dem ci euh, Kalidou Koulibaly l'international euh, sénégalais moom Kalidou Koulibaly nag daal di nay jógee foofu lay ci euh, Naples ci été bi mm-hmm. bu ñu sukkandikoo ci waa le Disport moom nag Kalidou Koulibaly daal na koy xamal ki nga xamante ni moom mooy président bu club italien bi bu ñu jugee nag ci Kalidou yi dañ koy daal di jeexalee ci Samuel Eto'o moom nag muy l'international camerounais moom nag daal dinay tontu Pasteur bi nga xamante ni moom moo près di euh, Samor euh, l'ex attaquant bu FC Barcelone boobu nag daal na koy tontu wax que ni kooku supposé Pasteur dong la waaye moom gëmul ay waxam kon nag fii la ñuy jaaree tàggoo tàggatoo bu dul tàggoo di leen jox rendez-vous beneen samedi fii ci Feeling Dakar ñu présenté leen actualité people yi gën a fës ci semaine bi.